yéen mbokk julliti yéen mbokk taalibe bi yéen ñi topp suñu programme fii ci salle bi nga xam ne bi weeru teeru weeru koor yu tàmbalee ba tey fii lañu bokk di nekk di dund njàng mi nga xam ne hizbut moom la ko Cheikh Mouhamadou Mountakha féetale ñu koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér tey nag di juróom-ñeent fan ci weeru Ramadan dëppook le 11 avril 2022 di bisub altine dellusiwaat nañ ngir jot leen programme bi nga xam ne tey jii moom la ñu fas yéene ànd ak yéen diggante 17h30 ba 18h30 niñ ko baaxoo def su ko defee ngeen xam ne niñ ko waxee woon démb kuréel 1 bu Hizbut Tarqiyyah bu Tëngéej ñoom ñoo ay njàng mi tey kuréel boobu nga xam ne Serigne Cheikh Samb moo ko jiite ñoom ñoo war a tey njàng mi tey looloo waral ñu dajal dalal kenn ci ñoom muy sëñ Mamadou Samb muy doon euh, membre ci kuréel gi bokk ci jàngkat yi. ngir rek mu jottali ñu li nga xam ne mooy programme bi ñu fa war dund balaa loolu tamit ñuy fàttali ni ñu ngeen dégg ñuy gàttandu sëriñ bi mooy kuréel 2 bu Hizbut bu Mbàkke ñoom ngeen dégg noonu ñuy xaar sëriñ bi mu yegg si su ko defee ñu ko gungewaat bu fekkee ne njàng mi àgg na kon sëñ du kon dama lay daal di jox rek ci lu gaaw nga jottali nit ñi programme bi nga xam ne moom ngeen war a jàng tey su ko defee nga mën a delluwaat ci kuréel gi ndax xam naa ne léegi njàng tàmbali bu sëriñ bi yegg see kon ñu ngi lay sant bu baax di la dalal ci bis bii nga xam ne euh, dellusiwaat nañ ngir teew lu njàng mi ñu bëgg rek nga jot ni ñuy teew ñëpp li nga xam ne mooy programme yi fas yéene jàng. salaamaaleykum maa ngi ziar ñëpp di ziar ñi déglu tey jii kuréel 1 Rufisque moo ñëw wàllum programme bi nag ni lay tëddee ñu ngi tijjee yaa xaare day fi buñ ci paree ñu ngi ci teg maddaliyal madatu ak hudaa waa kër sëñ Masamba buñ paree teg ci wajatulillaahi xam ak zalat sëñ Aaji Siise buñ paree ñu ngi ci teg rum naasu ko sëñ Mbay Jóob alhamdulillahi mat alhamdulillahi lazi matee zahab sëñ Abdou Diop ala inna ni arjo sëñ Aline Fall jàng mi nag mi ngi toll ci benn waxtu. jërëjëf Famadou defe naa sëñ Mamadou loolu leer na nañ njàngum waxtu donte limu xasida yi dafa mel ni euh, ab lim la. waaye terewul tënk nañ ko noo xam ne waxtu lay doon kon ñu ngi lay sant bu baax ci jottali gi su ko defee mën ngaa dellu ci kuréel gi ñu mën a wéy ci liggéey bi nga xam ne euh, kon moom la ñu fas yéene teewlu kon kon dégg ngeen ko sëñ Mamadou Samb jottali nañu programme bi nga xam ne moom la ñu fi war a lu tey jii euh, moom itam di kenn ci kuréelu daaray Rufisque euh, ñu koy sant bu baax ci teewaay bi donc sans plus tarder nous allons bientôt devoir rendre l'antenne puisque sur les images, nous voyons que le calife, est, si ce ne sont des images anciennes, le calife va bientôt arriver dans la salle. Le protocole est fixe, vous l'avez retenu. Dès qu'il arrive, c'est le coup d'envoi de ce démarrage, de cette déclamation de ces Khassaïd dans une salle qui est toujours pleine avant l'heure, avant même le démarrage de la déclamation. C'est dire que les gens sont toujours aux anges devant cette déclamation, n'est-ce pas Et surtout, devant ces kuréel qui rivalisent de dextérité pour pouvoir en tout cas à qui mieux mieux présenter en tout cas le meilleur d'eux-mêmes et aujourd'hui c'est encore euh, le kuréel de euh, Rufisque qui va relever le défi et le faire évidemment euh, pendant une heure. Et nous rappelons que également euh, le groupe le kuréel qui va accueillir le calife et que vous entendez en train de déclamer les Khassaïd, c'est le kuréel 2 de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Mbacké. et eux auront la charge également de raccompagner le calife au son des Khassaïd jusqu'à ses appartements. Et c'est ainsi que cela se passe depuis le début. Et c'est ainsi qu'elles se poursuivront jusqu'au, euh, jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Ce mois béni, n'est-ce pas, ce mois plein de bienfaits, ce mois pour lequel, évidemment, Allah le Trio a promis euh, des avantages et des bienfaits incommensurables. Et c'est au nom de cela que le musulman est invité à faire abstinence et chacun, n'est-ce pas, fait l'effort de se mettre à la tâche et de respecter